yaa rabbana Flash Teranga dafa ñëw fii ci dëkk bu sell bi dëkk bu tedd bi di Touba dëkku Cheikhul Khadim seen teranga bu Touba nekk fii ci Xayra jàkkaarloo ak kër Serigne Modou Bousso Dieng seen teranga day supermarché yu am lépp boo duggee danga fay fekk njëg bu xéewale poissonnerie droguerie électroménager alimentaire vaisselle bazar central équipement dafa centraliser lépp loo soxla ci équipement cuisine si seen ndaje diine yu mag lu si mel ni màggal wala gàmmu benn bërëb rek sa ajo daal di faju ma ne di nga fa am termus yu mucc ayib série de bool inox muna wala bool méchoui aji jaara plat inox yu dëgër glacière yu baax yi te am garantie tànnal si karaaf ngoonal yii ma ne verre à ak verre à boisson yii daal ak baraada yii ma ne fii am na ay paan yu jongama soobaan na ak lave bernde te des na jamono yi nga xam ni fagaru dafa gën a am solo central équipement indi na ndimbal bu baax aousu billahi min seytaan rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabil alamin wasalaatu wasalaam ala asrafil mursalin sayidina wa molana muhammadil amin wa ala alihi wa man tabiahum bi ihsan ila yawmi din mbokki jullit yi mbokki taalibe yi mbokk yi bàyyi xel seen site internet bi di Rafah TV ñu ngi leen di nuyu baax a baax di am kontaan ak mbégte ci ànd ak yéen ci seen émission yi nga xamante ne ñu ngi koy def ci wàccaayu safar gi tey jii nag ñu ñëw euh, seet si jëmm joo xamante ne dootuñu ko présenté ti ci euh, àdduna ndax euh, jëmm ji kenn mënatu ko présenté ci àdduna ndax kenn Serigne Touba gi nga xamante ne mi ngi koy def présenté na ko ci àdduna war ngeen këpp ñëpp xam gëm gi ak wóolu gi ak doylu gi nga xamante ne am na ko ci Serigne Touba ba buy wax ci ay kàddoom sax daf ciy feeñ di jëmm joo xamante ne sunu kilifa la suñu lépp la euh, ñu amoon nag moom ab jataay ci jamono yi ñu génn tey nag ñëw fi tey ngir waxtaan ak moom ci jëmm ji nga xamante ne moom moo di Serigne Touba waaye tamit waxtaan moom ci màggal gi euh, dañ koy bàyyi jox kaddu moom Serigne Gana Messere Makhtar mu nuyoo ak mbokk bu pare ñu doo a dugg ci laaj ak. aouzu billahi mina a rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashrafi almursalin sayidina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi Eh, bokk yi ñuy seetaan fu ñu mën a nekk ci àdduna bi ñoo ngi leen di nuyu di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. di ñaanal Cheikh Mahamadul Muntaqa sunu borom yàggal ko fi te wéral ko ba yi mu naalal islam yëpp màggale ko di ko ñaanal mboolem njabootu Cheikhul Xadim gi yëpp ak mboolem kilifa diine yi di ko ñaanal taalibe yi rawat nee na mboolem jullit ñi eh, di am mbégte ci jàkkaarloo yéen ci seen eh, télévision bii di Rafah TV incha allahu ñoo ngi sant bokk yëpp sëriñ Gana ñu ngi am kontaan ak mbégte bu baax a baax ci nuyoo bu mat bu matale boobu noonu ah, xanaa dañuy dugg rek ci laaj bu njëkk bi moom mooy ah, sëriñ Touba digganteem ak yonente bi salallaahu alayhi wa salaam ah, lan mooy laaj bu njëkk bi liggéey nga xamante ne na ko liggéeyal yonente bi salallaahu alayhi wa salaam lan nga ñu ci baaxee ci digganteem ak yonente bi salallaahu alayhi wa salaam. Eh, jërëjëf Cheikh Moustapha jërëjëf mbokk yi sëriñ <coughs> Touba moom digganteem ak yonente bi alayhi salaatu salaam mooy diggante boo xam ne diggante bu yéeme la. ndax dàkkantalam yépp day dellu ci bu tuddee jaamu jaamub yàlla lam cay teg mooy bii liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ëmbal ko it cofeel gu yaatu goo xam ne xolam dafa fes dell ci sopp ko waaye di ko liggéeyal waxtu nekk looloo tax sax euh, lépp loo xam ne daf koy def day wax ne lem cee jublu mooy liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu feeñ na ci bi muy wax maa ngi génn fukki fan ci weeru safar da caa li ko waral mooy liggéeyal yonent bi alayhi salaatu wa salaam ba mu nekkee ci tuumuranke gi it di wax ne samay kër gent na e, sama njaboot tàggoo nañ it li ko waral mooy tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te tàgg ya muy jël di ko jëme ci moom nekk tagg yoo xam ne yu mat lay doon. kon moom léppam ci yonent bi alayhi salaatu salaam la la dellu ginnaaw boroomam loola it moo tax muy sant yàlla it nag ci jagle gi mu ko jagleel ba mu nekk xaadimu rasul ndax cër bu rëy la ndax mulkul alil baaxil xadiim jaalani asnal xadiim li man la lahu mulkun yaddu wasaana ni an xilem kon yàlla ci boppam moo ko tànn def ko muy xaadimu rasul sante na ci boroomam it te nam ko waxee ci jazbul xuluub wax ne chakartuhu isqassani bi xidmatin maaxissani saa xidmatin fi àll nii lahu wa fakk wala bi kon dafa dafa sant yàlla boroomam eh, gis nga bi mu jógee rek aw yoonu gaañu baax ñi am yitte di jël seen awrayaat ya jël seen azkaar ya soobu ca dafa dem ba egg ci mboolem ngërëmi gaa yu baax yooyu yëpp waaye nag mu def yeneen bi alayhi salaatu salaam muy nga xam ne dafa wax ne mooy sama wasila te ci lépp lu may bëgg ci borom bi subhaanahu wa taala ci moom yonent bi alayhi salaatu salaam ci laa koy jaare gis nga ba muy nekkee ci ma di ko liggéeyee lam wax dafa wax ne awwalu ma btada bihi alxadim taalluqun bi man lahu alxadim awwalu ma btada bihi alxadim taalluqun bi man lahu taqdim wa azhara alxidmata ama jashashin wa qalbuhu admaraha min asasin dafa wax ne lim jëkk a feeñal moom sëriñ bi ci boppam mooy aju wakiir wéeru aju a taalluq mu ne waaye feeñal nag liggéey bi ci ama jashashin ginnaaw bi nga xam ne ab xolam denc na ko ci asasin kon day mel ni li mu nimse woon ginnaaw bi fi way juróom bàyyi ko la am nag ci jëy sës bi mu nekkee Touba di waajal génn ngir liggéeyalu yonent bi sallallahu wala bi mu nekkee ci yoonu liggéeyalu yonent bi alayhi salaam ca la wax ne li ma jëkk feeñal mooy aju gi ginnaaw bi nag liggéeyal yonent bi alayhi salaatu wasalaam waaye noonu ma la waxee woon ne noonu la jëlee woon yépp dafa wax feneen ne mun salixan fii jay sashin min xayri rabbil wara xadimu uthin xayri nga xam ne ko dafa mujj bàyyi yooyu ma la waxoon ne moom la jàpp yëpp léegi nag jàpp ci yonent bi nga xam ne léegi mooy wasilaam nga xam ne bi ci aruumu jamil xayri min maliki foofu wasila fi sirmo yi alim nga xam ne wasilati abduhul muxtaar sayidina huwa alladi man aba taxdimuhu xufida ba mu jógee nag ci di ko liggéeyal it jox ko boppam dafa jël dundam gépp jeexal ko ci la ma waxoon yaf na alladi min umri qad baqiya fi shukri wal xidmati insha rabbiya sama dund gi danaa ko jeexal neem soob na yàlla ci sant yàlla borom bi subhanahu wa taala waaye ci liggéeyal yonent bi alayhi salaatu wasalaam nga xam ne kon liggéey bi loolu la sasoo looloo waraloon mu jël ak dundam it séddale ko ñaari xaaj wax ne juróom weer yii da ciy tagg yonent bi waaye juróom-benn weer yii da ci julli ci yonente bi alayhi salaatu salaam lahum tudaahi baxda najaahi inda sabaahi wa fil masaa'i salaatu sitta bi matxi sitta taatihi batta maati saa'i juróom benn weer yooyu nga xam ne bu teroo da ci tagg yonente bi sallallahu alayhi wa ak juróom benn weer yi xam da koy tagg day julli ci moom mu boole ci nag jaayante ak moom ci xolam doon ko ne ay gëtam gisu ko daal di wax ne yéene naa nawaytu kaw nii abdallahi mumtathila li amri taarika nahyin xaysuma xutima ma fas yéene nekk jaamub yàlla buy jëfe lim digal bàyyi mbooleem lim tere bu ma defee loola nag ba noppi mustamsikan bi rasulillahi sayidina muhammadin man na man maxal ahsaana wal wajama fi ne ibaadatu wal xidma lay boole ba mu waxee ne damaa jóg nawaytu kaw nii abdallahi mumtathila damaa yéene nekk jaamu yàlla buy jëfee mboolem li yàlla digle nga xam ne mu tasi laa li am rek taarika na yaay si maaxutima jëfee lim digle bàyyi lim tere ba ma defee loolu ba noppi nag mustamsikan bi rasulillahi sayyidina muhammadin min mahal azana wal wajama dama daal di nag wéewu aju ci yonent bi salaa salaam yonent bi nan laa ajoo ci moom bihi taallaqtu fi sirrin wa fi alani inayatan min ilahi zasahal alama kon dafa jaayanteeg yonent bi alayhi salaatu salaam waaye ba mu jaayanteeg moom mu ne yonent bi nag mooy sama wasila wa huwa wasila wa huwa wasila lil wahaab muttakihi subhanahu qadiran qad kon yonent bi la jël def ko muy kerkeraanam gi nga xam ne ah, moom la jàpp jébbal ko boppam it desewul dara gis nga dafa wax ne aslamtu nafsi li rabbi la sharika lahu maa la si xafuhu shughli wa hajati sëñ Tuubaa dana la jébbal naa yàlla sama bopp waaye boole nag roy yonente bi sallallahu alayhi wasallam mooy sama yitte sëñ Tuubaa day mel ne bu ko daan laaj bu danaan roy yonente bi alayhi la si xafuhu shughli wa hajati sama yitte ak sama bëgg-bëgg mooy roy yonente bi sallallahu alayhi wasallam aslamtu nafsi li rabbin la shabiha lahu maa la si nahjahu xayril mahjati bëgg yàlla yonente bi jébbal sama bopp yàlla boole ko ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne aw yoonam mooy yoon yi gën waaye aslamtu nafsi rabbil la shabiha lahu maa la si xobbuhu axsa maraamaati wax ne bi ma joxee sama bopp yàlla it dama ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wa nga xam ne boo ma doon laaj lan mooy sa daytalu sàkkutéef sa bëgg-bëgg yow Ahmadou Bamba sa Tuubaa nee na mooy bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal di wax it ne aslamtu nafsi li rabbillah muayna lahu maa la si diinuhu xayru diyaanaati jox naa sama bopp yàlla jébbal ko ko waaye ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam nga xam ne diine mooy diine yëgal ci diine yi kon loolu euh, waaye aslamtu nafsi rabbin jalla an waladi maa lati xubbuhu shar'i wa adiyati yonent bi sallallahu nga xam ne bëgg gi ko bëgg sama sharia waaye mooy sama jaamu mooy sama aada kon nag sëriñ bi moom léppam la jox yonent bi sallallahu alayhi wasallam muy biiram muy bitteem deselul dara ba noonee mu ko waxee ca taayiya googee noonu la ko waxee ca xasida xattaaba yi wax ne wajjatu wa ci rabbi la sharika lahu maal xasimati fil idyaani bil xasan waaye wajjatu wa ci rabbi la muayna lahu maa salaati bi saw min taalika daden wajjatu wa ci rabbi la ibtidaa lahu maa ibtidaa bi sil kon roy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam maa tidaaqi roy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon roy googu mu roy yonent bi salaahu salaam mu wax ne yonent bi nag wajatu wa ci li rabbin jalla an mathalin bi xidmatin libna abdillahi gis sunani ba ma jébbale yàlla sama bopp nag dama caa boole nag liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muy liggéey ban bi xidmatin libna abdillahi jaaliba ma nota wa daafi xama nufa min al mahal di ko liggéeyal mu yonent boobu ma nga xam ne mooy jañ ay lor waaye mooy joxe ay xéwal teg kenn la fa kullu man xasahu l baari bi xidmatihi falaa yulaaqi siwal bushra walam yahuni képp koo xam ne yaa ngi jóg di liggéeyal yonent bi salaa salaam sëñ Tuubaa nee doo dajee mukk lu du mbégte mu wax ne yonent boobu nag leer na ma man sëñ Tuubaa nekk yonent bi sallallahu alayhi wa di njiit ci képp koo xam ne yàlla tànnoon na la ca gaa yu baax yi lii baana kawnul Mustafa raisa li kulli man qad fudilu ruusa yonent boobu nag muhammadun nadiruhu lam yaati fii ma moba wa abadan laa yaati kon dem day mel ni la ko jox wàccuwaay boo xam ne kenn mënu koo xam waaye muy wane nag baana li kulli man lahu saada an naan li xayril xalqi xarqu aada képp ko am ak xam na ne yonent bi salaahu salaam kooku mooy kii eh, xotti baax noonu mu koy taggee it moom yonent bi salaahu salaam noonu lay jullee ci moom te gis nga nim mu séddalee tagg gi ak ni mu séddalee Euh, julli gi dafa wax ne aataytuhu matti min al muharrami ila jumaadi mardiyan sal karami kon juróom-benn weer bu mu tamxarit teroo rek xasida gum bind da koy def tàmbalee juróom-benn weer yooyu xasidaam yëpp tagg yonente bi salaa salaam li xat misil xijjati min chehri rajab min ni salaati ala man intajab waaye bu weeru rajab teroo rek xasida gum bind julli ci yonente bi salallahu alayhi wa sallam lay doon làkkamte daahi li jumaadi thaniya min al muharram imtidaan ghaniya xalil tasamtu salawaatun min rajab li xat misil xijjati saxajan yun tëjëb loolu bi mat sita noonu la ko leeraat ci feneen waaye mu waxit ne muhammadun salla alayhi al baaqi salabali mawaahiba subaaxi lu doy waar nee na yonent bi salaa salaam yàlla na yàlla julli ci moom waaye salabali mawaahibal subaaxi ña jiitu woon ñëpp seen may ya ngëneel ya rasulullahi rekki ko joxam ko man Seexul Xadiim rasuluna ahmadu xayru naas zahzah anni dararal xannaas seytaane mi man a yàq ka dàq rëgatal ma ko dàqal ma ko nee na mooy yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ataytuhu ila jumaadi thaniya xidmata sidqin ma laha min thaniya liggéeyal naa ko liggéey boo xam ne nag ba ma ko tàmbalee kenn ko liggéeyal liggéey bu mel noonu amut la thaniya benn rek la min rajamin xuttu ila dil xijja lahu xilaaman xad xadat li xujja kon boo doon jël benn par benn rek da lay woon ah, dimension bi muy def di ko jëmee ci tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi jaral ko lépp moom Cheikhul Khadim mu jël dundam jël guddeem jël bëccëgam jox ko alayhi salaatu wa salaam. incha allah ah, sëriñ Gana Messere Al Mokhtar ah, ñu dégg ne wax dëgg yàlla li nga leeral ci yonent bi sallallahu alayhi wa day mel ne kon yonent bi sëriñ Touba digganteem ak yonent bi sallallahu alayhi dañoo dem bañ mel ne sax jëmm la ak takk der ndax dafa mel ne Serigne Touba mooy jëmm ji waaye Seydina Muhammad eh, mooy takk ndeer bi nga xamante ne boo xoolee jëm ji rek gis ni eh, ci takk ndeer bi li nga xamante ne moom mooy ne ci jëmm ji mu nekk tamit liggéey liggéeyal na ko boromam ba nga xamante ne eh, amatul koo xamante ne rek dana ko jaamu comme dana dana dana liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wasallam comme ni mu ko ne am na tukki boo xamante ko muy tukki nga xamante ne moom mooy waral li nga xamante mooy safar bi lan mooy sababu tukki bi nii li iqdaami ni bu xob daatihi bi xob bi raximan lam yasal xattu rahmaana kon ndeke motif bi mooy bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak jeex ci moom euh, liggéey boobu nag euh, bi mu saxee ci di ko liggéeyal am fu mu jëm am lu nekk yitteem te mooy yeesal li fi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bàyyi loolu dafa am lu mu tàbbal ci xol yi euh, nasaraan bi mu tàbbal ci seen xol ak fiiraange tàbbal ko ci ñi nga xam ne ñeneen lañu ñu jël ay tuuma jëmee ko ci ku tedd ki Cheikhul Khadim nga xam ne euh, dañuy wax ne nasaraan bi 1889 sëñ bi cee Touba ba ca déwén sa tàmbali woon nañoo am ay soupçon ci sëriñ bi ak taalibe yi ba jàpp ne kii am na jeneen yitte ju ne ci moom ak lu muy waajal waaye fekk na nag loolu moom du mbirum sëñ bi ndax la ngay xamee ne du mbirum sëñ bi mooy lettre bi nga xam ne sëñ Touba yónnee woon na ko ci bi ñu jàppee ñaaw njort ci moom bay jël ay ndaw di wane ne sëriñ bi taalibe yi dañuy yëngal réew mi dañuy def nangam ba tuuma yi bari sëriñ Tuubaa dafa am lettre boo xam ne ko bindoon yónnee ko Ndar lettre boobu moo jiitu ba mu nekkee Mbàkke Bari du yónnee waat ab lettre booba ay tuuma ci 1889 dafa wax ne euh, innahu la salaamun xasan ila amiri ndar wa man jara majrahu mujibuhu ilaamukum bi anni wallahi wallahi alhamdu wa shukru laa uwajjihu ilaykum dararan laa ne ni laa u'aa'idu ahadan illa sheytaani rajiim wax ne yéen kat maa ngi nii jëmee mbind mii ca am amiru ndar li ko waral la boo yëgal leen ne maa ngi ci jàmm di sant yàlla borom bi subhaanahu wa taala xam ne man duma jël ay lor di ko jëme ci yéen kon lañ njëkkoon a jort ne dafay taxaw pour préparer guerre wax ne laa uwajjihu ilaykum dararan man Ahmadou Bamba du yàgg ba ma jël ay lor jëmee ko ci yéen lu tax li anni laa u'aadi ahada illa sheytaani rajiim man de du ma noonoo kenn kudul seytaane te ahasana allahu taala minhu yàlla muccal nañu fa mata raaytum xatti haada foo leen gisee sama mbind mii fa kuunu muuqiniin bi anni bariun min kulli tuhumatin boo leen gisee lettre bii na ngeen xam ne man set naa wécc ci tuuma jun ma teg waf'alu maa huwa laayiq bikum baynana wa dalika wal islah def leen li war ci sunu diggante te mooy yéwénal in urid ila al islah mastataatu wa antum allah bil islaami xayrikum wasalaam man bëgguma lu may lu yéwén te loolu ci yéen la gën a war na wasalaam loola ba mu amee nag ñoom jàpp nañ ne kon leetar boobee sëriñ bi bind ko yemu ca bëgg a tax taalibe yi yam bañ a dugg ci benn mbir taxit mu laabire leen moom taalibe yi xamal leen ne aleykum asalaamaaleykum amma baatu fa nii amatu kullu man yadaxa taxaluxu bii bi taaxatillahi wa taa bi taaxatillahi wa taaxati rasuli sallallahu alayhi wa sallam wa taadu ma ruasa ahl ard bi an yajtanibu maa maa ngi digal mboolem ki nga xam ne aju na ci man ngir yàlla topp yàlla ak yonente bi sallallahu alayhi mooy li ma lay digal mooy ànd ak i teggin ci ñi nga xam ne ñooy kilifa yi yooyu suuf yi mooy bi an yette bi an yette bu maa kullu ma yu addi ila mafsadati fi lxaali ma maal ci na ngeen fexe ba moytaliku lépp luy indi ab yëngu tey ak ëllëg boo gisee yoonu murit am stratégie boo xam dañu koy doxee ba fi ne ba li xew xewee ni sëñ Muntaxa doxe xam nañu lu mu mën a doon waaye dañuy joxe li sëñ Tuubaa digle waaw maan sëñ bi dafa wax ne na ngeen moytandikoo andi yéen luy yàq tey ak ëllëg ndax xam nga ku dul sëñ Tuubaa mënul la dékku nasaraan kon du du digal ñooñam ñu riposté wu baa mu digal ñooñam ñu manifesté wu baa mu digal ñooñam ñu def lenn luy indi ab yëngu moo tax mu ne digal naa ku aju ci man nga jëfandikoo ay teggin sa diggante ñoom te moytandiku nag euh, luy waral ak yàq tey ak waaye yóbbu mu ci waan tanibu kullu maa yu addi ila tazazulil aw fasadi fil ard luy waral ab yëngutu ak yàq suuf na ngeen ko moytu fa man raa xatti aw raa xattan nuqila minhu walaw bi wasatin mi man yetasababuuna ilayya aw samiahu wa xaalafahu fala yalumanna ila nafsahu walhamdulilahi rabil alamin daal di wax ne lii ma leen di digal nag ku ko gis na ci jaar ku ko dégg feneen ni toxal ko it te na ko dégg te jafe ko waaye ku ko dégg ba noppi jëfewoo ko bul yedd ko du sa bopp léegi loolu li nga ciy déggee mooy biñ ko tegee ay tuuma teggi na tuuma yi ne moom loolu tax koo jóg waajalul ay ay guerre amu ca yitte waaye yëmul ca loolu da caa boole wax ñoñam na ngeen ànd ak dal lii amee ñoom dañoo joxe ndigal na murid daal mën nañoo nekk ci seen wetu sëriñ nekk ca la ñu war nekk ndax ñoom lii ñu leen tegal ay tuuma la. ndax booba mel na ne Serigne Touba du yoon na mag ñi bañ fees dell ba nga xam ne que euh, euh, jëlee leen naa Serigne Touba waaye mag ñi sax mënoon nañu liggéey di problème bi. waaw loolu mooy lii mu leen digal rek xam nga daf leen a yaroon defar leen ñoom sëñ bi rek lañu doon déglu moo tax mm, lépp loo gis ñu jëfe ko rek fi ne mag ñi man nga nit mën na jaaxle waaw ndax suñ tubaab bi ñuy dem ci géej gi lu tax rëfal teewul loo tax defuñu nangam déedéet lii la leen dénk na ngeen toog te li waral bi yëngu andi ko moo tax menn mag manifesté wul yàqul dara déggoo dara da leen a nag ku deful nag bul yedd kenn sa bopp. c'est lettre bu am solo lettre bu am solo nga lire parce que jamono léegi dafa mel ne lettre yu mel nii dañ ko war di liiraat taalibe yi di ko yëkk. waaw loolu mooy gëstu sëriñ bi rek def ci gëstu sëriñ bi rek ndax man moom wet gi ma féete mooy jéem a gëstu mbindum sëriñ bi ndax leneen la keneen di wax eh, jëmee ko ci sëriñ bi it euh, boo leen dajalee rek njariñ feeñ ndax mag ñi dañoo bind te borom xam-xam yi wax dëgg yàlla yàlla may leen labir gu toll ni liñ jàng xam ko ñu ngi koy wasaare ngir nit ñi mën koo jariñoo kon defe naa ku am yittee gëstu rek da nga dajeeg dara ndax borom xam-xam yi ci yoon yu bari na te am na yéene nit ñi jariñu ci am nañu mën nañoo bind mais mënuñoo jàllale kon ñim yàlla dogal ñu mën a jàllale ñooy delluwaat ci téere yéen bind ñoom jàllale ko nit ñi dégg ko lépp nekk njëriñ kon loolu loolu lu ci nekk la euh, loolu mooy tax bi sëñ bi loolu amee euh, ba ñu demee ba ci atum 1895 sëriñ bi jógee Mbak jógee Touba dem Mbacke Bari mbakki Bari sëñ baa ngi fa dem gaaw 29 mars ginnaaw kori ñaari fani kori la jóge fii ci euh, këram gi di Daaru Xulus dem Mbacke Bari Mbacke Bari ba mu fa demee. dafa amal meneen mbir mu fa xew mooy dafa am ku ñuy wax euh, sàmbalaw bi sàmbalaw bi dafa jaayanteeg Serigne Touba jébbalu ci moom nga xam ne mooy sàmbalaw bi Penda Njaay dafa jébbalu ci Serigne Touba jox ko boppam liy firndeel euh, loolu it jaayante gi mu jaayanteeg Serigne Touba jox ko boppam waral na ñenn ca ña loola neexul yëgle ko ba mu egg ci Leclerc ñu tàmbali nag ruuxalee yoxi waaye bu ñu demee nag ci waxi sëñ Abdou Karim Touré nga xam ne moom sëñ beeku nettali xew-xew yi dafa wax ne bismillahi rahmaani rahim sallallahu ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima ama baad faqad daani sayidi cheikh ahmad alqadim almakki ahmad alayhi ridwanullahi taala alqadim data yawmin fi wasta daarihi wa tahaddasa maay fi amri alxaybati wa ma jara baynahu wa bayna iblis allain aduwullah fi awali al amri dafa wax ne sëñ Touba ma woo ci digg këram man Cheikh Abdou Karim Touré daal di may nettali mbirum géej gi tukki bi ba noppi wax ma nag la ca dox ci digganteem ak Iblis mais ba ma ko waxee nag ma sant ca yàlla mais ma daal di nag sant yàlla nag daal di wax nag wax ma bi rabbika fahaddis kon yàlla ginnaaw xéewal la sant ca yàlla daal di ci def xasida goo xam ne wax ne bismil ilaahi lazi maal aliyin badal salmat fi alal bakiyin bi ma santee yàlla ba noppi nag maa ngi tàmbalee tagg wii nag jëmee ko ci Serigne Touba mi nga xam ne xat saa dafa diin yàbb kii wax sa da dara bi muy dajeeg diine dafa fekk mu wéet ba nekk nekk ci ak tumuranke nga xam ne amul benn yaakaar moom diine ci boppam moo wax ne kon amul fu mën a jëm ak doog ak jaaxle gi nga xam ne Serigne baa ngi waaj war a génn laaj Serigne Touba moom diine ci boppam yaa Cheikh wala sedda fii nii ndax tawat jii ma daal dana dana dana wér ajaabahu bi naam sëñ bi ne ko waaw da nga wér kay yow diine lu lay wéral ndax ana tabib bu si explique maay docteur bi lay faj man Serigne Touba loolu nag ba mu amee nag euh, sëñ Abdou Karim wax ne noonoo googu ma la waxoon léegi ne yàlla dafa sànni ci xolub nasaraan bi ak fiiraange ak noonoo dugg ci biir ñu ñu ñu jëlal jàppal sëñ bi ak mañeel mu ne alxal adaawata fil aqyaali wal xokama fal xaalu wal xiilu dawrun kullama xëy qad xaajara cheikh min tuuba ila jolofin min baxdi idqaalihi tuuba bi taxsiini qad jaahu xaakimun bil jundi saadafahum jeewal li ndar jaahu jundul magasin sëñ Abdou Karim ko moo nettali lool sëñ bi génne Touba ginnaaw bi ko yàlla aaree sengee ko ba noppi dem Mbacke Bari nee na ginnaaw bi mu jógee Mbacke Bari nag la ñëw nag fi nga xam ne mooy jeewal daje fa ak nasaraan bi mu ne foofa nag bañ fa dajee ba noppi it yàlla defal ko ca ndam yu rëy. dafa xam ne jibriluhum qaidul rukba sama wa abu bakrin li qaidul jund ardi bi Chine maanaam ña nga xam ne ñooy soldaar ya ahlu badrin malaaka ña ci di malaaka nee na sayiduna jibrilu moo yoroon nos ba di leen moom mat ña di ay nit ak sayiduna abu bakrin noonee la sëñ bi jaare ba dem Ndar ñu àtte ko le 5 septembre ci kaw ay tuumaaki tooñ <clears throat> génne ko mu dem Ndakaaru dem ci géej gi juróom-ñaari at yu teg ay weer yoo xam ne ci tuumranke ak wéetaange la ko la ko nekkee ba yàlla dajaleel ko ngëneel yëpp ak tedd nga yëpp mu jóge fa ñibbi situ ci réew mi di Sénégal 11 novembre 1902 def fi juróom benn weer wala juróom-ñaari weer dem gànnaar ñeenti at la def gànnaar ba mu defee ñeenti at gànnaar it daje fa naar yaag ñëpp si seen xam-xam yu rëy ya ak seen wilaayeetu ya ñu dem mujj ñu seereel Serigne Touba ne kii daal ku mel ni mu amul am na ci ñoo xam dañuy egg ci fala maa laqati Cheikh Ahmadou Bourha nafattu yamini mil xubalil mashayikh ba may làmb ba laaj Sëñ Tuubaa rek dama bàyyi ñëpp yem ci Sëriñ xam ne Mahmoudou Daymaani moom egg na ci di wax ne cheikhul mashayikh alal humumi min hadisin minhu wa min qadim wax ne si sax Sëñ Tuubaa mooy seen sëriñ te ñu jiitu ak ñi fi nekk loolu kon wane na daraja jooju xam ne ak tolluwaay bu rëy bi nga xam ne suñu borom jox na ko euh, sëriñ bi ba mu fa jógee dem ci yéen def fa juróomi at jógee fa nag ñëw njaareem njaareem nag ba mu fa nekkee ba delsi si 1339 ci la door a tàmbali joxe nag ndigalul màggal gi mu war a doon 1920 jàpp 21 1920 jàpp 21 euh, ñu dugg ci li nga xamante ne euh, euh, fi ñu commencé fépp nekk na foo xamante ne fu nosu la gis nañ li nga xamante ne moom wa kon diine la doon sauvé ndax lottu goo xamante ne ji noonu la na ko ci jamono yooyu ñu toll mu mel ne am na noo xamante ne noonu la waxee woon noonu lañ ko war a màggale nan lañ war a màggale li nga xamante ne moom mooy euh, diiru safar gi ah, gi ndigal li noonu mu ko joxee sëñ Thierno Diaw nett na ma léegi waxaat na ma ko <clears throat> sëriñ bi xam nga màggal gi moom tel sës la mu 339 war a doon 1921 1920 1921 sëñ Moussa Ka it loolu la taarixal njaareem la jëkk a màggale ci tël sësin la àggale fii la ñu bàmba jommale tey bàmba Ahmadou Mbacké euh, <coughs> sëñ Thierno bi ma ko laajee léegi dafa wax ne jëmmi sëñ bi ci boppam bi mu wooyee sëñ Ahmadou Diop dana ko sant leen yàlla am naa bis yonent bi sallallahu alayhi wasallam gàmm mooy bisam Seydina Ibrahima tabaski mooy bisam man nag sama bis mooy bis bi ma génne sama kër ga ca Mbàkke bari dem la géyal Rasulullah sallallahu alayhi saa yu dikkatee na ngeen ma ci sant la yàlla koo xam ne sama mbég sa mbég la. nag ma ci sant yàlla sunu borom daal di wax ne nag euh, bis boobu nag bu dikkatee na ngeen ma ci berndeel mooy li tàmbalee ci ganaar ba ci gëléem waaye daf ma wax léegi lu doy waar mooy dafa wax ne bu bu sëñ bi nee na ko woon boo leen di loo leen cay def ba di ko lewetal boo leen bismillah da ngeen ci teg tubaab bi fenn señ Bamba am na tam waaw ba kon ñoom li mu bëggoon mënuñu ko am te sëñ Tuubaa li mu bëggoon am na ko bis bi nag mooy sëñ Moussa Ka ba ñu wax na ne yaa saaili an sababi taali tanzim yawma xuruuju cheikhina al baki min daarihi tudduxaa bi mbakke baari bés ni xaalixil baraayal baari taarix ba ama jeey sa sin mooy at ma moo di lëlub sëriñ Basiiru mbir mi maanaam yow miy laaj lan mooy sababu màggal gi nee na mooy génnu sëriñ Tuubaa mbakke baari dem ca géej gi kon bis bi ko yàlla tege nattu bi ci la wax nañ ma sant la yàlla sama borom subhanahu wa taala waaye bis la boo xam ne <clears throat> ku ma ci sant la yàlla bu ëllëgee lu ma sama borom fay ñu bokk bu ñu demoon ba ëllëgit dara amatul bu fukki fan ak juróom-ñett dellu si waatee àjjana doon soppi ku ci taar ak bànneex bañ ñiy laaj lu xew ñu ne bisub Ahmadou ba lan am ci adduna moo dellu si waat kon bis la boo xam ne bisu pay la sëñ bi woote ci ak cant wax ne nañ ma sant la suñu borom ndax lépp daf koy delloo ci borom moom subhanahu wa taala ngir réyu pay gi ak ndam lu màgg li ko ci yàlla may muy bis boo xam ne dañ cay jàng alxuraan da nga cay jàng ay xasaayit waaye moom ma nga cay bernelu loolu loolu mooy cant gi delloo ko lépp moom sëriñ bi xam ne moo liggéey woon moom la yàlla fay waaye mën a ñëw leen ñu bokk loolu nag jur loo xam ne waxuma ci batin la waaye saayir si rek li sëñ Tuubaa doon wax ne fataxta baaba shukri fii safar tayebta naf si bi duuri tayebta naf si bi duuri durin aw safar mën nga koo gisee ci màggal gi magal gi ci plan économique xool li muy joué looy jaay mu jar loo bëgg am ko bunt yi li sëñ Tuubaa ne ubbi nga bunti sant ci safar tey ren moom lu ne ku ne mën na ko ne dégg mbooleem événement yi mbooleem activité yi yëpp a taxaw kon fa tax baabu sukkur fi safar ubbi nga bunt cant yi fi ne màggal gi ñëpp ay wax alhamdulilah fi ne am na ku dencoon daraam jërut am na koo xam ne doon na jaay nangam léegi tey kay lu waay di yaxantoo lu mën a doon gis nga sa bopp ci màggal nga xam ne ci côté économie nga xam ne réew mi tey bu ñuy wax ne crise euh, dañu nekk ci azma alamiya crise mondiale lañ nekk mais crise mondiale boobu nga xam ne crise économique la màggal gi daf ci joué moom pour suqali Sénégal waaw daf koy sauvé daf koy fi mu nekk di fi ne dafa mel ni batalo bu tàmbali woon a suux wala ku daanu la ci géej am moo yu gaaw noor pour jël si la noonu la màggal gi def pour dabar dabar réew mi parce que xam nga ne yëg nga ne boo seetluwaatee boo defee am benn remarque bi sëñ bi joxee ndigal ak léegi yëg nga ne fonction yi am ak yëngu gi réew mi di yëngu da mel da ngay xam ne yow lii lii yënguwu ko woon kon yëg nga ne màggal gi waxuma ci baatin bi waxuma ci ngërëmul yàlla yi waxuma ci payeg suñu borom gi waaye day loo xam ne rek dafa jik am réew màggal gi dafa jik am réew maanaam nga xam ne tey boo demee kay ñaw am na tey boo seetlu tabaski téyeeri xatuñu korité téeri xatuñu mais xoolal màggal ah boo demee ci jaaykati daral yi tabaski gi am na ñoo xam dañoo dellawaat seenu jur tey ji daral yaa ngi fees dell ak nag yi am na ñoo xam ne sàmmoon nañ di dund seenu jur mais jaayoon ko jafe woon na ci ñoom am na ñu wàcce woon seen ana seen i ana seen i ceeb ana nangam lépp tey màggal gi taxaw am na ñoo xam ne ñaata yoon la ñu stocké ci lu nit war a naan jaaxle woon nañu ci loolu màggal gi bi mu ñëwee dafa ñëw ubbi buntu économique te kat li li ci ñenn ñiy jàpp économistes yi liñ ci mën a calculer ba wax ko liñ gis la doon ak ñu xam mais am na loo xam ne mooy li dugg ci gafaga yi nga xam ne mënees na koo xam li ci génn waaye bu buñ doon xool tey évaluer ko li ci li liñ ci financé kenn xamul ni mu toll ba noppi dafa dafa joxaat day am lu mu jox réew mi mooy tey bu ñu xoolee ne benn manifestation amul ci adduna bi tey ñu ne màggal Touba ñu ngi koy célébrer mais moo leem adduna bi dañoo teg bët Sénégal teg bët Touba pour lan lu xew léegi lu xew ñu ne dafa am bis boo xam ne kat sëñ Touba moo ci génnoon ñu ne ñu laaj kuy Cheikh Amadou Bamba ñoom xam nañu ko ñu ne en 1895 mooy ki seen maam yi jëloon génn ko am réewam pour jéem ko éliminer kooku moo leen gagné tey ba woo ak njabootam bis boo xam ne day sant yàlla boromam wax njabootam lañ ko sant la yàlla borom bi subhanahu wa amaat beneen dimension bi muy jox ni nga xam ne dimension doon boo xam ne bu kawee la ci sëriñ bi adduna bépp dañ ko koy joxaat léegi motif bi bu dee demee ca naaree la bu ñu xoolee lu ko waral ñu naa ah kii kat dane woon xusuuri xallat wal ahlu anni tafaaraxat li madixi ladi anxul madihu qasiru génn naa sama kër bàyyi sama njaboot sama lépp ràpp na ngir rasulillahi masiri kaw ni abduhu qaadima nabi wa amlul baraya lil ilahi yasiru ñoom dañuy daal di d'accord ci ne ah voilà kon que diine ngi nii ko jëfal yàlla fay la ñu mën a gëm ne diine ci wér ku yàlla jaral l'islam parce que Sëñ Tuubaa néewutoon damay jóg ngir ñun ay kër néewutoon damay jóg ngir alal néewutoon damay jóg ngir nangam maanaam loolu natt rek dafay am kon fierté boobu am ubbiiku googu am kon màggal gi li sëñ bi noonu na ngeen ma sant la yàlla kon li mu doon bisub sant moo tax bi ñu ñëwee ba puus ba sës ba geg màggal gi ñëw tinkiwaat tinkiwaat yéen tënkoon yëpp leeralaat xol yi leeralaat xol yi macha allah mu mel ne euh, warees na soñ soññi tamit jëme ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy euh, ndaw ñi ngir ñu gën a góor góorgóorlu jëme ci wàllu màggal gi te bañ a rek euh, yaa fuus ci bis bi ki nga xamante ne day financé jëme ci màggal gi ak ki nga xamante ne dafa yor dara di ko kof kofal bañ koo jëme ci màggal gi ñooñu lan mooy seen différence. ah loolu moom sëñ Saliou firi loolu nañu ko sëñ Saliou nee noonu bu ñaar dendee kii di ko fonk kii du ko fonk bët bu set nga gis ki koy fonk li muy rawee ko du fonk te sëñ Moustapha ba àdduna tukki màggalu daaw a dàq ren doo ko dégg mukk mukk ren gi sax moom li muy màggalu xam nga ren bi ñi am ni quelqu'un ñoom te seen i mbir ñu teg ko ci ay mais ici d'abord alors parce que ce que ñooñu mënuñu comprendre parce que sëñ Touba ñun saa si rek la yor nii di quelqu'un bu ñu defoon nii bu ñu defoon nii mais liy régler affaire bi sëñ bi def na ko ba noppi programme na ko léegi nag. ku ne mën naa natt boppam ne li nga tàmbalee gën a yëg nii yow yëgoo ko woon daaw waaw kon kon kon xam nga ne mi ngi noonu léegi fi ne tey ñi doon jàq ka tiit sax ñi ngi sant léegi nag loolu li nga koy dégg ginnaaw bu ñaar dende kii di ko fonk kii du ko fonk ki koy fonk bët bu set nga gis li muy rawee ki ko dul fonk même doon ko ne man dama ñëw di màggal si it bu may ñëw dinaa andi dara dama ci xas-xas leen benn daaw dafa am ku ñëw fii andil andil ma ndox andil ma pomme ñu bokk li maag mu ne ma bu fekkee li ngay wax dëgg la nga ne ku sëñ Tuubaa nee na ku ma ci defal nangam nangam dëgg bu déwee nee na ënd nag ma ne ko jumaa jaa ngi ne yow bu fekkee sëñ Tuubaa dëgg la moo ma wol boppam na ma jënd naa la hmm? loolu màggal gi moom doy sondage bu wóor mais xam nga màggal si def sa xaalis sa poos wër jumaa ji dafa taw ak bës noo booy mooy loolu sëñ bamba ah, bamba réew mi bàmba moo ko moom nangam coowaloo mais li nga andi dangay ñëw ba delloo doo siyaare dama ne murit day yeewu dama ne boo amul loo def wutal mbuusu tàngal fexe ba buñ añee ba noppi nga dugg ci biir waaye tàngali sëñ bamba jàng murit yi mas mucc macc mucc waaw <laughs> ah, xoolal da fexe ba duggal sa dara doon ko ne kër gi nga dal dara du fa jeexit yow fexeel ba sa dara dugg ci jar na duggee ci oto di ñibbi di ñëw te fa nga jëm da fay dal day kii nga paasal ñaar maa ngi ñi ma bokkal Versailles bi banque bi paas naa lépp ci magal gi la ah même yow boo amul loo def jar na nga taxaw di xool kuréel nga yóbbu ko nga gis ku yori bagage diis nga jàppale ko maanaam magal gi moo dul lu ñuy seetaan maanaam am ngir la ndigalul sëñ bi santal leen ma yàlla. mais du màggal goo xam da ngay ñëw rek doon ko ne da nga sañse toilette loolu lépp mën naa am ndax ci xeet ci ci sant gi ndax inna allaha yuridu an yara athar ni'mati ala abdihi mais du rek ñëw sangu ba seet toog yor sa téléphone vocal yónnee fii doo jàng alxuraan doo jàng xasida bu ñu toog doo yanu ca dab ya te doo ci def dara màggal gi neex la boo noppee kàddu sob saan mais wute wul ab tourisme boo xam ne da ngay ñëw rek pour def siyaaxa dangay fexee def dara surtout ndaw ñi gis nga gis nga koo xam ne dëgër na ci moom pour mu yomb li nga yor jox ko Sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa boo ko joxee benn booy fay day yokk ba noppi te day gaaw ndax buy dal muy dal mooy sëñ Tuubaa bu ko defee màggal gin nga boole ci teggin jumaa ji bu dee fi ngay ziar boo ne teggi sa tànk rek yëgal ne que tumuraanke ji woon te dem ba ñëw moo fi ne jan war ba nga ko war a jox moom de nee na la ci sëriñam moom rasulullahi xaddi jaxaltuhu turaba naalihi yaa layta nii lax yi bi fadlihi nee na man bu ma gisoon rasulullahi sama tànk sama lex bi laay loolu ta ca roon dëgg la tëdd mu jaar ci kon yow ndax yuuxu wala saaga wala wax lu warul wax war na la ci wet wet bu maanaam booy dugg dëkk bi rek war ngaa yëg ne war nga sentir sa yaram war na sentir ne maa ngi dugg ci dëkk bu sell boo xam ne ki fi nekk mooy sama yaakaar yi adduna ak alaxir li ci Amadou ma indaale samay teggin indaale sama dal ba noppi jëfe ndigal parce que murit murit moom fooram mooy ndigal dama ko wax ba tey dama ne sëñ Muntaxa bu ne woon na ngeen mu ngeen muuru ay saako ceeb bopp murit boo séen ab saako ci war a nekk ndax moo nuy jariñ moo nuy aar ndax moo nu gën a xam moo nu gën a joti te moo nu gën a yor mbir ma te defe naa lu murit koste koste ci sëñ Tuubaa mënoo seen sëñ Muntaxa moom lam ngemee wax ngi woo ko wax fam yegg ci dogg ngi woo ko ki tax sëñ Tuubaa yonente yëbu ko malaaka yëbu ko loolu ak dogg kon nag ndaw ñi nañ gën a waajal rek xam ne sëñ Tuubaa worma la sëñ Tuubaa teggin la sëñ Tuubaa nee na nag barkeb néeg la waaye teggin mooy buntu ba macha allah Serigne Gana Messere Al Mokhtar mu mel ne waxtaan yi moom neex na neexaay boo xamante xam naa ne buñ sañoon du jeex waaye tamit waxtu bi mi ngi dem may fàttali mbokki mbokki téléspectateurs yi ne leen yéen a ngi bàyyi xel émission bi nga xamante moom la fii ci kër Serigne Gana Messere Al Mokhtar ngir fekk si ko waxtaan moom ci wàccaay safar yi a dégg li nga xamante wax na ko jëmee ci Seexul Xadim waaye tamit wax na ko jëmee ci naka a màggale màggal gi ah, am am solo la ginnaaw ba loolu jàlle dañ lay jox waaw jërëjëf loolu it xanaa di soññi ñi ne ci dëkk bi ñu xam ne du yuuful xadim lañ ñii ñëw bu dee màkk dañuy wax du yuuf rahman gani yàlla waaye gani sëñ Tuubaa ñoo ñëw kon nag nañ leen yaatal rekk waaye dorob bi ngay lal di ko yéene sa bopp lalal ko ganuk sëñ Tuubaa gi rekk waaye pot bi ngay naane jox ko ganuk sëñ Tuubaa gi néeg bi génnal jox ko ganuk sëriñ Tuubaa gi ndax sëriñ Tuubaa moom dafay bàyyi woon këram ba yàlla fay ko waaye jeeg ji nañ bàyyi xuloo yi ak werante yi jigéen ñu siis ñi nañ taloore ndeysaan wax naa ne bari na ku ñàkki gan jigéen ju siis la ko yóbbe ndax ngañ-ngañ jaag tëll tëll jaag xuloo ga ak werante ga da ngay yaatu te dal te bàyyi njëkkalante wanag yi bàyyil gan ñi sangu bàyyil gan ñi naan dee leen servant di leen toppatoo baa xewlu ngeen fii seen kër la loolu moo la war hmm? waaye kenn mënu fee togg lu doy bët bu set nit ñi ñëw lenn kat ak mbaadoo la ndax ñii ñëw nangam nangam ëpp naa def bu ko wax santal yàlla bi la yàlla boolee ci sëriñ bi nga yaatal loo daan def dollil yi weex nay weex yi ñuul nay ñuul nay boole tàng ak sedd na yëpp di ànd nga boole ko def kook yéen a ju sel te jox ko sëriñ Tuuba te góorgóorlu te moytoo def lu naqari sëriñ bi ci ci bés bi ak dëkk bi ndax dëkk bi moom lu yàlla aar la ndax suñ tubaa ne yàlla nag ma ci muccal ci ab kàccoor kon boo jógee di ñëw dëkkuwaay lalal pexe mu yiw lalal yéene ju rafet waaye mbokk mi ngi fi fekk si it yaatal na dalal na ko tatagal ubbil kër yi ubbil lépp te yaan yàlla suñu muntaxaay yàgg fi lool te gën koo jox suñu bopp te gën koo déglu rek te xam ne wan nañu aw yoon te xam ne ndam la ci àdduna bi koo xam ne kenn mënta yeb sa kilifa da fexe ba yow kenn du la yeb kon maa ngi leen di jaajëfal bokk yëpp di leen bala wax Cheikh Moustapha Serigne Mourtada kon wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu waaleykum salaam wa rahmatulahi taala wa barakaatu xol yi seddati na sëriñ Gana Messere waaye tamit li ñu a wax moom mooy ah, li ñu njortoon ci waxtaan wi am nañ lu kawe suñu njortu ci li nga xamante moom lañ ah, ah, ñooy gan ñi di ñëw kenn ku nekk yéene ji nga war a indaale ak pas-pas bi nga war a indaale waaye tamit ñin ñi nga xamante ne yéen la ñuy fekk si tamit taloraas bi nga war a ngeen war a am ak gëm gi ngeen gëm war a gëm liggéey bi liggéeyal sëriñ Touba kër gan yi Serigne Touba yi kon nañ yaatal gan ñi yaatal kër yi yaatal xol yi jiital ah, te lépp rek ñu def ko ngir xitma liggéeyal Serigne Touba ci ah, ah, leen di sant bu baax a baax di ko a sant di ñaanal képp koo xamante rek jàpp na ci émission bi ko ci mel Serigne Mourtada Fall waaye tiisi bi moom sama sang moom ma ko jox te sang bi tamit xëy na dafa bëgg ku wax turam waaye taal ñu koy sant bu baax a baax di ko gërëm xéewal di ñaan yàlla yàlla na ko yàlla doole dooleel ci barkeb Sëriñ Tuubaa sant ñëpp gërëm ñëpp wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ya rabbana ya rabbana ya rabbana ya rabbana ya rabbana ya rabbana habibi Flash Teranga dafa ñëw fii si dëkk bu sell bi dëkk bu tedd bii di Touba dëkku Cheikhul Khadim seen teranga bu Touba nekk fii si xayra jàkkaarloo ak kër Serigne Modou Bousso Dieng seen teraanga day supermarché yu am lépp boo duggee danga fay fekk njëg bu xéewale poissonnerie droguerie électroménager alimentaire vaisselle bazar. ak wàccaayu màggal gi mën ngeen passé seen commande si seen teranga bi leen gën a jege lépp lu ngeen fa jënd mën nañ leen ko livrer si seen teranga bu Touba bi nekk xayra jàkkaarloo kër Serigne bu Bousso Dieng en face banque BHS gratuitement maanaam du ngeen fay dara. agsi leen ak jàmm ci seen teraanga bu Touba. nekk fii ci xayra jàkkarloo ak kër Serigne Modou Bousso Dieng seen teraanga day supermarché yu doomu réew mi taxawal yéen waa Touba xayra Mbàkke Daaru Marnaan Daaru Xuddoos Guy Mbind Ndindi Jannatu Daaru Minam ak li ko wër nee leen ak seen teraanga seen bànneex mooy suñu mbégte central équipement dafa centraliser lépp loo soxla ci équipement cuisine si seen ndaje diine yu mag lu si mel ni màggal wala gàmmu benn bërëb rekk sa aajo dal di faju ma ne di nga fa am termus yu mucc ayib série de bool inox muna wala bool wi aji jaara plat inox yu dëgër glacière yu baax yi te am garantie tànnal si karaaf ngoonal yii ma ne verre à ak verre à boisson yii daal ak baraada yii ma fii am na ay paan yu jongama soo baan na ak lave-main bernde te des na jamono yi nga xam ni fagaru dafa gën a am solo central équipement indi na ndimbal bu baax lu si mel ni emballage alu barquette ay gants ak tasse à jeter en papier central équipement di la jox lépp luy taaral kër di bakkanal dund gi moo leen jagleel accessoire de décoration yi drap de sax desul ginnaaw boo bëggee ñëw central équipement toppal tegtal yii. bu dee oto nga yor jaaree buntu Pikine da ngay topp déviation bi ba ci station Ciel Oil boo jegee barrage bi romb Siva première mbedd bu dee nag da ngay dox wëral rond-point ca e koñ bu njëkk bi à droite central équipement ibbil na leen ay buntam du lundi au samedi de 9h à 18 h